bi di eh, Thierno Alassane la nekkoon fi ancien ministre eh, génnee na ab eh, téeréer boo xamante ni fi mu ne nii indi na coow lu rëy ci réew mi alors yow ban appreciation ban jàngat nga am ci ouvrage googu nga xamante ni fi mu ne nii yëngal na état Sénégal. waaw man yàlla dogal na nag jotaguma liir ouvrage bi pour xam lu ci nekk parce que man aussi bind naa ay ouvrage je suis membre de l'association des écrivains du Sénégal waaye ànd boo gis rek. ci politique mën na am tàggoo waaye lu ñuy faral di wax rek na tàggoo bi di rafet moi je dis souvent amee militant par exemple nit su ñëwoon tey ne ma président na ma bëgg a bàyyi sa parti pour dem feneen man jàngat ji ma ci am mooy na ma leen leen tey pour man politique comme bus buy daw la chaque arrêt am na ñuy wàcc chaque arrêt am na ñuy yéeg mais man may ñaan yàlla ñuy ñëw ci man nañuy nekk des hommes de qualité tey Thierno Alassane Sall. Ah, mais mais mais mais fàttali ni livre bi euh, protocole de l'Élysée confidence de ancien ministre sénégalais du pétrole. waaw xam nga xam nga loolu bërki démb rek maa ngi ciy bind dafa am solo nasaraan si génn ci problème bu ñu lié parce que tey nag soo xoolee aussi au Sénégal mhm. y de grands imprimeurs qui sont là. côté boobu aussi dinaa ko reprocher Thierno Alassane. non avant reproche bi man livre bi en tant que tel parce qu'il souligne tey jii nii li nga xamante moom moo gangréné sunu société bi ce problème de mal gouvernance waaw xam nga xam nga mal gouvernance comme on dit kenn ku ci ne ak gis-gis bi nga ci am bu président Macky Sall di egsi au pouvoir en 2012 Thierno Alassane était avec lui bu yàlla dogalee nag ci diggante bi mu def choix am dem créer mouvement am dafa am lu ko génne balaa muy def choix am dafa am lu lu conditionné xam nga loolu am na lu ci bëri ah. parce que moom dafa ne mhm. qu'il a démissionné le président Macky a dit qu'il a limogé donc loolu ñoom seen biir ñoo xam. li li ñu am comme révélation mooy que ni ji jii ni dañ ko bëggoon signaloo contrat goo xam ne dafa nar a lor askanu Sénégal en bon patriote donc mu fas yéene euh, démissionné. d'accord mais man j'ai une question certainement que Thierno a une excellente plume mais pourquoi attendre plus de trois ans avant de sortir l'ouvrage il pouvait faire un livre blanc. Nous avons tous fait des livres blancs à un moment donné. Donc pourquoi bu mu génnee mënul woon tëju 100 jours bindu ko je n'accuse ni l'État ni Thierno Alassane l'essentiel en tant que Sénégalais lambda on dirait que tu accuses Thierno Alassane. non man dama ne en tant que Sénégalais lambda. Mm-hmm. que la vérité soit faite et que la vérité aussi nañ ko mën a lire et le dire. parce que la vérité doit être lue et dite dans cette affaire maintenant libre à tout un chacun de faire des sorties je vois les militants de Thierno Alassane s'agiter de même que les militants de l'Alliance pour la République mais vu que nous nous sommes constants avec nous-mêmes et en tant que Sénégalais nous demandons à ce que cette situation vraiment que ça se règle mais que ça se règle dans les règles de l'art ce que j'appelle les règles de parce que nous nous sommes des produits du Sénégal ñun ay made in Sénégal lañ internationaliser les débats parce que loolu ça ne crédibilise pas un état gis nga un état on peut être un ministre de la république sans pour autant nga xam lan mooy les secrets d'un état quand on est membre d'un état te loolu dama ko jàngee ci suma bàyyi di jibalay tika dafa am lu ma jàng ci moom mooy nit ki doo nekk ci état ba génn ci nga tàggoog ay nit dévoiler des secrets d'État j'ai été avec de grands hommes d'État ah donc tu reproches quelque chose dafa am looy reprocher reproche à personne quoi que ce soit mais dama la ne man en tant comme d'État wala li ma bëgg incarner ak li ma bëgg doon ëllëg suma réew ak ñi ma jot a côtoyer parce que j'ai été membre de, de de plusieurs cabinets ministériels et des institutions de la République en détenant des secrets d'État en faisant partie des hommes yoo xamante ni souvent dañ lay consulter pour laaj la sa avis avant dossier yi di dem signature wala mu war a nekk un décret je pense que loolu mooy un État parce que État dafa ànd continuité quand on a des reproches à faire à un État on peut faire une contribution on peut faire un livre on peut faire un livre blanc mais ce qu'il faut éviter comme li ma la wax que ça se passe à l'interne que ça se passe au Sénégal et que l'on ñun ñuy jël débat bi di ko internationaliser ndaxte gis nga loolu dafay tax crédibilité réew mi di des dafay tax sur le plan national ku ñu waroon naw dootuñu naw man côté boobu laay waxee mais que Thierno Alassane li mu wax dëgg la ou pas très man dérangé ma li ma xam nag mooy moom la concerné ak son ancien patron donc ñoom ñaar nañu leeral sénégalais lu xew ak lu nekk ci biir en tout cas man suma logique man suma parti ma intéressé lu sénégalais yi bëgg moo ma intéressé li ma yootu ci réew mi te di ko laaj sénégalais yi suñ ci tollee looloo ma intéressé. ñu ñëw ci actualité euh, de la euh, sous-région euh, li xew Mali mu di crise goo xamante nii